Thank you. seet bi daal déglu ñu dem waaye ah. waaw déglu waaye ah. waaye ñëpp a woo. waaw kooku dafa teel daa ñëw. waaw man de tey dama doon saa tey dama fi ndogoo tey. waaw ñii dañuy invité ndogu suñu xarit bi nekk ko xam. tey la ndogoon bi fa la ñuy ndogoo tey ñun duñ fi ndogoo de. ay tey duñ man ma lay dem ko. waaw waaw waaye baax na baax na. eh gaawul waay ji de muur. ah xaaral ma ma tudd ndox mi naan. waaw baax na. ko nag moo ko te doo fi ndogo. dama tëdd dama bëgg a noppi fi ne ba ndogu jot. ah da ngay noppal. waaw kon naa ñëw dem géntal te ñëwaat. waaw baax na waaw kay maa ngi dem te ñëwaat. fi nga doog. non moo fi ndogoo. ah déedéet. na préparé nga dog bi yëpp. ah yaay bàyyi dina ko préparé. waaw kon jàmm. allez. xëy na dina dina leer du leer rek. mu sax mbigal sa jëkkër solo. Mày xem Xem Wow Aja bu Yo yang itu turun aku boleh. Bayu, bu bayu, saya nak ujian. Yo, yo gay yo. Anak dia tu bukan bu. Ah. Kalau tak gini biar mana agak tidak melayu. Ya, nak kau yang malu. non way ba là daa mel ko xoolal na fi càbbee est ce que bind fi sono nyingire kola lema kola lema tejuko tejuko tejuko nyingi bari cari kita fadon to mana fadon fadon nyingi bari Thank you. có feere ko len ñu ndaw omin omin mutu ah da mutu ci sa baye yow li ngay foy papa tejuma la tejuma la ak sama yaay ah da mutu ci sa baye ma nga ak sao vậy? say gëna du fi dogo ah waaw woo ko téléphone waaye dama yor kër bi ma nekk kon rappel moi ko li rappel moi xamal li rappel moi lii moo tax ma naa la nga jëndal ma portable ngay bañ naa ma élève yëpp portable xam nga sa mur yaa dawal gaaw ci yàlla suuf nga mu abal téléphone nga woo gaaw gaaw gaaw xale bi xale bi kenn du ko caaxaan ma ko waay. yàlla. naa. waaw xoolal maa nemmeeku waa Sane tàndarma gi nga xamante ne directement directement directement màkk la jógee meew bi fi mu duggee te dem di dem di jëli torson. bàyyi ko na bàyyi ko na mam ji moo dee. c'est bien fait pour yéen maa ko yéene ñëw. yow Seydou moom. nijaay li jënd bu nëbb sa caat bi. caat bi sama caat kan moo ma tëj ci néeg eh? ah kan moo ma tëj dem. ah nañ ma gàttal sama kër ba moo doo romb ne yor. si maa romb dugg ñu dugg ñu toilette bi ba ma duggee toilette bi génn yow bii yaa ma xool ma xoolal ni. waaw xool naa la ma xool ni ma ko def si càgg. ma dëkk nii nii. waaw loolu kay mu wax. waaw léegi. li nga xam ne tey moo di ma ko tey. ah mais thank you